boole ziar bi. fan ngeen jógee. ñun ñoo ngi jógee Dakar. waaw daayira indi kape Géejawaay Dakar. daayira indi kape dëkk Dakar kë kë sëñ Mouda kë sëñ Mouda waaw. ñaata at ak li ngeen di ziar si. ñaa wala mat juróom ñaari bañ sosee daayira ba ak léegi. waaw mais Badou am jafe-jafe ngir leen dugg ci biir. non amul benn problème bi ñu. waaw bu ñu ñëw daal yàlla ñoo jàppale am benn police bu ñu escorte bu si wax dëgg yàlla. léegi lépp ci dimbalu maam jaaral rek lañ ko amee. kañ ngeen jógee Dakar. démb ci guddi la jógee Dakar. ñu ngi Dakar kii soxal kii nii bo passé kër. yow yaay président ma waaw man maay jëru Diar mais président baa ngi nii. waaw mu ne man maay seen mag. ñu jël lépp teg sama loxo daal waaw. waaw wax la jëru. la mooy président daayira bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay président daayira bi nu mu. man maay jëwriñ bu góor ci daayira maam jaar bi waaw di Modou Ka. ndeysaan waaw Modou Ka waaw Dakar ngeen jógee. Dakar euh, défoncé. défoncé waaw. ñaata at a ngeen di ñëw di. mooy cinquième fois bi juróomi at. waaw bii mooy juróomeelu at bi waaw. dañu am fii soxna soo xamante ni liggéeyal maam jaar rek moo ko ñor muy soxna Fatou Ndiaye Baye Fall maam jaar foofu la ñuy dal waa fa ñu nekk boo ame jot nag fi ñëw mi fi ci ginnaaw teen bi ci ginnaaw forage bu njëkk bi ak ñett mais liggéeyum fi liggéey ñii fi dund ay téeméeri at liggéeyuñ ko te moom kese moo am ba euh, màggal goo xamante ne benn soxna ñu koy ñu koy ñu koy euh, màggal ci poroxaan fii ku fi woote woon kenn ku dul moom ñu ko fi fekk du bari parce que fi sori na naqari naa ñëw mais kenn yëgul dara kenn faaluwul dara ndax euh, mu jaral leen jërë ngeen jëf yàlla sëñ Tuubaa yokk xel mbokk yi ndeysaan gis ngeen lii lu yéeme la muy daayira handicapé bi nga xam ne ñoo nekk diwaan bu Dakar ñu daje regroupé wu nee na bii mooy cinquième fois ñu ñëw ci dëkk bu sell bi nga xam ne mooy Poroxaan di siyaare si ki nga xam ne mooy soxna jaar Jaaratullaahi bu Bousso gis ngeen ko noonu ndeysaan introsé nañ euh, ki nga xam ne moom mooy seen euh, président bi am na solo xam naa kon dañ ciy jéem a am benn jigéen rek ndax am nañ ñi nga xam ne ñooy président bi su ko defee Abdou Ndiaye kon euh, soxna si euh, yéen a ngi jógee diwaan bu Dakar. maa jëwriñ bi moom. Ah, ah, kontaan ci maam rek. ndeysaan ko liggéeyee lu ne nañ ko. xeeb nañ ko trop nag. mënuñu waaye suñu xol ak lépp jox nañ ko soxna Diarra. ballaahi. Ah, soxna Fane Ndiaye Baye Fall maam Diarra mooy da mooy dal. dëgg yàlla kontaan nañ trop suñu xol seet. waaw ren ci suñu juróomi at ñu koy màggalal maam jaara déedéet wax dëgg yàlla macha allah ñu ngi ñuy teew ni waaw ñuy teeroo sëriñ la ñuy teeroo wax dëgg yàlla kontaan nañ moom. dégg nga ko kon mi ngi noonu Abdou Ndiaye nit ñi teeroo kilifa noonu lañ leen di teeroo am na solo kon macha allah ñu ñëw di siyaare si fi nga xam ne moo di ci barabu soxna jaaratullahi eh, maam bu Bousso lii nag yaakaar naa lu lu lu am solo la loo xam ne yéeme na daal. Euh, tabaarakallaahu muy suñu mbokki handicapé yi nga xam ne ñoom ñoo nekk diwaan bu Dakar euh, dajaloo ñëw di siyaar ki nga xam mooy soxna Jaaratullaahi Mariama soo kon rang wu jigéen ñi euh, su ko defee it dinañ leen jiima xool ndax jamono ji nag dañoo baare li nga xam ne mooy porte bi ngir cëral ñii nga xam ne tey lii nga xam ne moo nekk ci ñoom suñu borom subhaanahu wa taala moo ko dogal ci ñoom wax dëgg yàlla ñu cëralee leen baare porte bi nga xam ne fi la jigéen ñi war a jaar jaarale leen fi jox leen seen waay bañ mën a am euh, siyaar euh, bi nga xam ne niñ ko bëggee ngir ñu amee ko noonu euh, moo tax wax dëgg yàlla suñu mbokki takk der yi ak ñi nga xam ne ñooy dongay tarbiye yi nga xam ne ñooy dongay laxasaay yi da ngeen gis ñu sol gilet yi jàpp ci liggéey bi macha allah ngir mën a mucc ayib léegi tey rek ranki doxaat dinañ ànd ak yéen incha allah ci mbokki soxna yi laaj leen nag ñoom it introsé leen soxna jaara xam naa kon sax mën nañoo daal di dem ñi nga xam ne ñooy suñ mbokki soxna yi rek into introsé leen ci li nga xam ne moom moo di bis bi naka la ñu gisee li nga xam ne mooy di màggal poroxaan gi ak tamit fi nga xam ne mooy ci dëkk bu sell bi di Poroxaan suñ mbokki soxna yi macha allah ñi ngi taxaw nii am naa buñ ci mën a am seen soxna rek sëñ bi ñu ngi lay nuyu. bi ñoo ngi lay fay. foo man kees laa jógee. kees nga waaw ñaata yoon a ngi ne maa waaw man de ba ma xamee xàmmee ba léegi maa ngi ñëw Poroxaan. waaw. Poroxaan yi ren ji ak yi jàll. waaw ju ji moom dafa gën a kawe yu kii Serigne Touba yoonama mel noonu at mu dikk rek day gën a kawe. yéen kàddu cher ci soxna Diarra. waaw soxna Diarra moom xanaa di ñaan rek mu fajal ñu aajo bi ci biti yi comme ça su ñëwee suñ ko fajee suñ soxla suñu waxee suñu aajo rek mu fajal ñu ko ñaan yàlla fekk ay déwén yu bari sëñ Muntaxa yàgg fi loolu te wér balay sax ay man Maam Jaara lan ma tuddee ma ziare si sama mbaajeen rek man ma del xanaa ñaan nga balaa déwén bi nekk aajo yi ñëpp <laughs> ah, man sama mbaajeen dama koo bëgg <laughs> yàlla suñu borom fa man soxna Adja Seck laa tudd Adja Seck man maa ngi soog a ñëw Porokhane ah. waaw waaye noonu li fi gis yéem na ma man madame laa maa yaay Xaadim moo tax ma ñëw waa damaa bëgg am am soxna jaara moo tax ma ñëw tey di ko ko diis waaw dugaguma moom laa bëgg soobee yàlla di nga dugg léegi inshallah maam boy ah xanaa man maa ngi tudd soxna Faat si la dëkk Touba Saate dëkk Touba Saate Saate waaw di ñaan yàgg at mu de maa ngi koy ñaan soxna jaara weeruma waaye maa ngi ñaan soxna jaara di ko ñaan dolli wér at mu jot ma mën a ñëw siyaare si maam jaara ndax maam jaara ku ko siyaare ku ne sa aajo faju sa yor aman man am naa maam jaara am sët am naa ah, maam jaara am sët laa ko am ab set laa am maam jaara sama doomi càmmiñ it am am na maam jaara moo tax soxna jaara at mu jot ma bëgg ñëw di ko siyaare nuy ñaan yàlla xéwal yokk yàlla may leen fan wu gudd ak wér nu yàgg leen fee fekk ngeen di nu ñaanal nu di leen ñaanal ci dooley Serigne Touba ak soxna maam Diarra ak sëñ Bassirou Mbacke ak sëñ Abdou Hakim ci barkeb sëñ Abdou Hakim. soxna si maam Boy. waaw ñu ngi lay nuyu. ñu ngi waaw man day soxna Jama Sow laa tudd tur ah? soxna Jama Sow dëgg Touba Saate soxna Jama Sow Touba Saate waa am nga maam jaara waaw am naa maam jaara de ah, am naa maam jaara waaw màggal si na ma nga ca dal ba ay wala ngay sànni rek xanaa nag di sant yàlla rek di leen sant nag tey ñaanal maam jaara mu tax ñu ci barkeem di yàgg a màggal si te fekk leen fi barke suñu fàllu di leen ñaanal yi ñu yàgg leen Diarra Diouf waaw euh, koo àndal ñëw fi soxna maa yi mu sëñ Modou Fatou waa ñu ñëw ci bisub soxna Diarra bi xam ni kuy jigéen rek tey war ngaa defaraat sa doxin defaraat sa tollin xamaat fi nga toll sëriñ ku tedd ki ndax euh, tey ji ñu ñëw ku ñu àndal gëm soxna Diarra te wóolu ko doylu ko ba diiru ñu jàppe poroxaan dara du yitteem lu soxna Diarra ñu àndak moom ñëw fii ci poroxaan ngir jëmmal bis bi màggal bis bi fas yéene bernde mbooloo mi ci bernde nu sell ànd ak ñoom ci ànd wu sell buñ fa jógee dem ca daara ja joxe fa ay laax mu ngoone mu jël ay kaamil ak ay yére yeesukaay jox ko turandooy soxna jaara yi nekk turandooy soxna jaara yi nekk poroxaan mu mel ni loolu moo yitteem te ci loolu lay dox te ci loolu lay woo ñëpp soxna si maanaam soxna Maysa moom duñu wax ci moom ndax ñun man ci moom moom moo nu yar moo nu defal lépp moo tax lu nu xam ci àdduna moom moo nu ko xamal kon dañ koy sant bu baax di ko ñaanal liggéey bi mu yéene liggéeyal maam mu def ko ni ko soobee te rafet nañ ci njort ndax koo xam ni dalay àdduna yitteelu lu Sëriñ Tuubaa kon kooku rafet nañ njort ci yow te nag ku nekk nag lan la jàng rek ngay mën a wax ñun li ñu jàng yar ak teggin ñun tam ñu ngi sant baax di leen gërëm yéen di ñaan yàlla nañ ko yàgg a teewee déwén déwén di leen ñaanal télé yokku gudd fan man gi ngeen dem ba am seen télé bopp. Euh, mbokk yi ñuy seetaan lii lañ leen jëlalee woon fi nga xam ne mooy ci barab bi dem nañ introsé ñi nga xam ne ñooy euh, suñu naataangoo yi ñi nga xam ne it dañuy ñëw di ziar euh, ci góor ñi jël nañu leen. dugal nañ leen ci biir barab bi jëlal nañ leen ambiance bi ñëw nañ ci mbokki soxna yi gis ngeen daayira bi nga xam ne mooy daayira. Euh, bu suñu mbokki handicapé yi jógee diwaan bu Dakar gis ngeen loolu mu mel ni nag jamono ji barab bi lu gën di naaj rek day gën di xat ndax fi ne nii fenn fu ci nekk ci àdduna bi jamono ji nit ñi ña ngi fa jógee di ñëw ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di Porokhane kon Touba Argentine TV lii la leen jëlalee fi nga xam ne mooy ci barabu soxna yi Mariama Bousso bi nga xam ne moom la ñuy euh, ñaanal di ko fàttaliku di ko màggal euh, muy wéyjuru Seexul Xadiim euh, te tëdd fii li lañ leen fi jëlalee foo ko defee incha allah ci kanam tuuti danañ dem fa la nga xam ne moom moo di ca teen ba nga ne fa la soxna si daan rootee incha allah ñu dugal leen ci biir teen bi ak tamit ndoxi barkeelu yi nga xam ne mbokki taalibe danañ ko fa jëlalee incha allah Poroxaan daal équipe bu Touba Argentine TV dara dara du leen ci rëcc wax na nag Touba Argentine TV léegi disponible na euh, ci euh, réew bu Sénégal waaye rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba lawal na ay bànqaasam te incha allah dina gën a yaatu kon euh, Abdou Ndiaye moo nu féetal ci wàllum caméra bi ci kàddu gi seen mbokk Arona Cissé wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.